jiital la muqaddamatu ji moom day wane ne lii mooy buntu téere bi nga xam ne da cee bëgg a laabire gone yi ak mag ñi nga xam ne seen njëlbeen dund dafa wéyoon ci caaxaan nañ war a def bu laabire googu jeexee nag mu door a dugg ci dëgg-dëgg téere bi njëkki ak imaan bu jeexee mu teg ci ak islaam mujje ak ihsaan yaa ayyuhaa sibyaanu yéen ndaw ñi laa tastaxilu bu soxlawoo xanil hudaa lu dul jub wastaxilu da soxlawoo bil ulumi ci xeeti xam yaa fastaxilu da ngeen soxlawoo bil xifdi ci wattu alquran wa tilaawati ak jàng ga wajitani boo te ngeen di teet teet mooy moytu majalisa shaqaawati jataayi texeeti ga te de yéen gone yi maa ngi leen di dégg bu leen am soxla ci dara lu may jub rek jub rek moo amul njëlbeen moo amul mucc bu bokkut moom rek du dara jub nag da nga koy xam njëkk ngay xam lan mooy jub ak lan moo jub réer ak ba mën a aw ci yoonu jub wa ba ci yoonu wa moo tax mu ne da ngeen yittewoo xeeti xam-xam yi. ngeen yittewoo xam-xamu diine te mooy tawxiid fiq tasawuf loolu ngeen am ci bu yóbbal mooy tax ngeen xam yoonu jub ba mën caa aw bu ngeen amee yóbbal nag ci ñetti xam-xam yooyu di xam-xami diine bu xam-xam yi nga xamee ne loo ci gën a géeju rek gën a mën a géeju ci alquran ak addis gën a mën a géeju ci talax yi tam seqal ta suuf lu jëkk-jëkk nag nee na mooy na ngeen jéem a mokkal alquran alquran ku ko mën a mokkal rek na fexe ba ko ndax man koo mokkal sàggan bu mokkaloo ya ko dara jëru ko gannaaw bu ngeen mokkalee ya itam ngeen di bari la jàng alquran jublu ca jaamu yàlla jublu ca sàkku ngërëmal yàlla te jotaay boo xam bu ngeen fa toogee ba jóg bu ngeen fa dolli ko dara ci wàllu yàlla bépp jotaay boo xam ne boo fa toogee ba jóg ak dolliku ci wàllu yàlla rek soo tuut muy jotaay boo xam ne mën na la andil ak ñàkk a texe kon majaalisu shaqaawa jotaay texee di day yaatu bépp jotaay boo xam ne doo fa dollikoo lu baax rek rawante na nag di fa jëlee ak yàqu mbaa di fa jógee loxoy kese tuli ko fa benn jëriñu àdduna du benn jëriñu àllaaxira rek jataayu texee di la dee leen ko moytu wala zimoo te ngeen taqoog man ka nga xam ne laa yasaalu du deñ xaabidan di aji jaamu li rabbi si ñeel boroomam qaayidan te aji wommate ilaa hudaahu jëm ci jubam ga mu ne itam ndegam àndandoo mënta ñàkk ànd ak koy roy ci moom baax na baax dana la soññ kon fexe leen ba di ànd koo xam ne dafa xam yoonoo ba noppi sax ca aw ca ku ànd ak moom itam mu la cay teete nga xam ne ci bëgg am gërëmul boromam bu gisee sëriñ boo xam ne aw na ci yoon wa ba kumpaam den ca mu ànd ak moom mu teete ko ca moo gën a gaaw muy jéem aw yoonu boppam sëriñ bi sax moom ci ni sëriñ bu la teete ci yoonu rek ku bëgg a dem ak boppam it faaw seytaan yi nax rek te du ca yëg dara nekkoon dee leen takkoo koo xam ne di farlu ci jaamu yàlla te ko ànd ak moom te kull man ne baadara gaawantu na waqtal sixari ci waxtu ndawe ilmi huda jëm ci jub istaraax kon mu noppalu waqtal kibari ne nag koo xam ne ba nga doonee gone nga daldi jéem a xam fi saasa yoonu jub dal ci aw fi saasay saasa kon de yomb lool ci yow waaye nag koo xam ne dana man gone laa rek jéemut a xam jub ak lu baax dem bay magum jëmm nag bëgg wëlbatiku nag aw ci yoonu baax day fekk xolam ak woon na ci safaan ba i caaxaan rek aw ci yoonu jub da koy jafe lool wuuteeg ka nga xam ne nag moom ba mu nekkoon rek kàll feegut la jéemoon xam yoon wa teel caa làggal ay cëram kooka moom noppalu na rek di wéy ba àjjana dem soob na yàlla ba tax mu nekk gaawantu ci sa waxtu ndaw taxaw temb ci jub boo doonee mag noppalu wa man tadaaraka ku dabaatal allazi la nga xam ne xadd faata rawoon na ko minal loxaa ci ak neen wa amara te mu dundal al awqaata waxtu ya bi tawbati ca tuub ga ak nasuwaxi ka ci sellaa kon mooy tuub ga sell lool lool wa iqbaali akuk dëgmal ila ilaahi jëm ci buur bi faasa kon mu texe mbaa kon mu tuufu bil kooku nag bu jéemee dabaatal loola te loolu mooy fu mu toll rek di tuub tuub gu sell dellu ci boroomam te sééne la dale foofee mu toll ba muy génn àdduna mu sax rek ci rafetal kon day mucc rek la ko rawal lépp dabu na ko xam ne kon nit ñi ñaari xaaj lañ am na ñoo xam ne yàlla baax na leen bañ doonee gone dañ teela na bëgg lu baax te way ca ñoo xam nag buñ tolloo ci ndaw jëm ci boo xambaane daal am na woon taw fiix yi waaye ci lu baax ñooñu nag dañuy seetlu seeni càggante ci yooyu jamono di seetlu lañ daan mooy yàlla ñu taxaw temb ci tub ko tub gu sell fas yéene dugmal seen borom rek nag buñ ko defee day mel ne la leen lépp tabaat nañu ko fexeeku jàpp leen nasihat yi sama laabiire nag ñeel leen fa tarbaxoo kon na ngeen tonawu duniyaa ci àdduna ba oxraa ak ci àllaaxira maxa mooy am tona li ñuy wax bénéfice dane gone yi kat laabire naa am am njëriñ jàpp leen baax te jëfe ko ba ko defee ngeen jëriñu ci àdduna ak ci àllaaxira da ngeen texe ci àdduna ak ci àllaaxira ànd ak ñu baax ñooy texe baabu li ab bunt la fi